politique yi moom moo gën a encourager ces jeunes à ce que ñu jël la mer pour dem euh, lan nga ci xalaat. bon voilà un ministre qui devait déposer sa démission. pourquoi depuis longtemps parce qu'il a échoué dans sa politique de jeunesse c'est lui le ministre de la jeunesse et de l'emploi ce ministre là qui est mon ami mais depuis qu'il est là qu'est-ce qu'il a fait en termes d'emploi pour les jeunes dara sinon des de son temps moom son seul programme c'est tout simplement de faire une grande offensive contre Ousmane Sonko c'est ça dégg naa ko mu la grande offensive contre les les les migrations clandestines. Uh-huh. moom la la seule offensive bu mu bu mu sax réussirul mooy tout simplement la grande offensive contre Ousmane Sonko voilà c'était ça son programme depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui voilà tout un quinquennat qui a été dédié tout simplement dans la lutte contre pratiquement les opposants sénégalais c'est-à-dire que taluñu réew mi gis nga e ñu doon wax plan Sénégal émergent c' e, e, le plan Sénégal emprisonnement pratiquement depuis deux mille vingt et un jusqu'à aujourd'hui la seule chose que les politiques là ont réussi ici c' est emprisonner les gens te loolu moo am quand j' entends Pape Malick Ndour et j' l' qu'il ne vit pas dans ce pays. Ah ah, mais comment à quelques encablures de la fin de du régime. tu me parles de programme. moom xamoon xanaa xamul sax la durée même d'un programme tu tu parles de programme quel est le programme que toi tu peux mettre c'est-à-dire pendant ans quel est le programme qui a été mis en place pour stopper euh, comment résoudre le problème du chômage des jeunes alors que chaque année sur le marché du travail il y a au moins trois cent mille demandeurs d'emploi trois cent mille demandeurs d'emploi chaque année qu'est-ce qu'on xam nga gis nga. alors ñoom ils ont soutenu que a le programme xëyu yi. Euh, entre laay ñëw si. entre deux mille vingt et un a créé plus de xam nga loolu voilà loolu échec bàngoog. parce que lu ko waral. Mm. ça c'est des réponses yoo xam spontanées alors que moi je pense que en matière de programme fi événement vingt euh, deux mille vingt quand il est sorti il a dit aux jeunes je vous ai entendu je vous ai compris. oui moom ne l' de ce qui est euh, euh, euh, comment mouvement yi lu ko doon indi ce n' était même pas sax ay sonk yooyu mais parce que parce que jeunes yi Covid bi sonal lañ leen amatuñu xëy. Mhm. il a promis le programme xëyu ndaw yi. jusqu'à deux mille vingt injecter cent cinquante milliards. pour produire soixante cinq mille emplois dégg naa sa premier ministre moom dem na ba ñoom ils ont fait quatre mais c' est un échec même si des quatre ah mais comment c' est à yow ñu ne chaque année y' a en ans tu as créé quatre vingt dix sont les emplois qu'on a créés aussi xam nga aussi c' un problème. les emplois précaires moo tax Ahmed Suzanne li nga wax léegi quand tu parles d' gis nga. xaalis même soo ko yoree te amuloo la formation qu'il faut l'encadrement qu'il faut doo doo dem c'est-à-dire même si tu n'es pas sécurisé fiscalement aussi doo doo dem alors que dans ce pays da ngay gis ñoo xam dañuy am seen xaalis mais ci lu ñu dugg ci boppam duñ ci duñ ci mën a duñ mën a réussir bu njëkk émigration clandestine comme ni ko ki waxee léegi ñi ci daan dem c'était les pêcheurs mais léegi affaire bi ça a complètement tout changé léegi sax on assiste à une féminisation de l'immigration clandestine les femmes enceintes moi vraiment j'ai été des enfants fois j'ai été ému quand j'ai entendu un père eh, euh, de, de deux de deux de deux filles qui ont disparu en mer comme ça bu nekk bar Bargny mu ne ñaari doomam jigéen disparaître nañ mais wax na ne man je ne suis même pas stressé parce que bi ñuy dem yëgal nañ ma ko yëgal nañ ko ko mais xam na ne parce que mënu leen fa téye kii amul kii dafa bëgg dimbale papaam kii dafa bëgg a dimbale yaayam finalement ñoom la seule solution mooy lan il faut prendre la mer parce que xamul tax man la y a un échec mais surtout foofu la euh, euh, Suzanne di wax ni que les responsabilités sont également partagées kay moox la il y a pourtant des pays où les jeunes ne franchissent la mer pour dem pour dem le meilleur moyen de retenir ces jeunes dans ce pays là c'est-à-dire c'est de leur donner l'espoir d'un travail fii bu ñu dem comment tu peux imaginer un boo xam ne yow nee nañ bientôt on va exploiter le gaz. le pétrole et le gaz 1400 milliards de mètres cubes gaz. 630 de barils de pétrole. pétrole. phosphate tu as réserve 1 milliard de tonnes. zircon de tonnes. 90 tonnes d'or de réserve. nga am 3,2 millions de terres arables loolu lépp nga ko dans ce pays 18 millions d'habitants tu ne peux l'espoir d'un travail ba tey fi xale yi. Hmm. mais loolu c'est un échec mënul wees loolu te échec boobu ce sont les régimes qui se le partage loolu moom mën naa ci ànd. les régimes qui se sont succédés c'est-à-dire ils se le partagent parce que loolu ressources yi ma cité fii yëpp depuis que le Sénégal est Sénégal ressources yaa ngi fii mhm. mais comment ces gens la ne sont pas parvenus aujourd'hui avec tout ce que l'on a oui. pour que le Sénégal ne puisse même pas c'est-à-dire bénéficier de l'ensemble de ces xale yi mën fi toog ñun kay ñoo waroon am cest à ay émi ay c'est-à-dire ay immigrants nit ñi ñoo waroon jógee fi nekk yi pays yu bari avec tout ce que nous avons ñoo waroon ñëw Sénégal cest à en masse ñun ñoo leen waroon di contenir mais ñun waruñu fi jógee di dem finalement c'est le sens contraire eh ça montre que oui. les gens ont perdu l'espoir dans ce pays espoir boobu nag mooy lan xale yi toog fii war a tekki mënuñu tekki amatuñu mais l'autre aussi volet c'est que y en a des gens qui aussi la répression dans ce pays am na ñu bari ñoo xam ne dañoo daw génn dëkk bi parce que seulement ils ne se sentent plus en sécurité physique il sécurité l' insécurité alimentaire mais il y aussi l' insécurité physique ñi nga xam ne jàpp nañu bu ñu toogee ci réew mi ñu am fu ñu leen dugal ñu daal di daw génn réew mi aujourd'hui quel est nombre de sénégalais yu nekk bitim réew yoo xam ne ñi meetu ñoo teg tànk seen biir réew parce que seulement il y a une politique de répression boo xam ne inouïe qu'on n'a jamais vu dans ce xam ne nag qui n'ont fait que aimer leur nag qui n'ont fait que aimer ce pays Mm-hmm. ñi fi génn yëpp dem dëkk bi parce que dañoo bëgg dëkk bi c'est pas parce que da ngay wax loo xam ne dafay waroog ñi nga xam ne ñi nekk fii lañuy wax ak yow la ngay wax peut-être bokkul. Mm-hmm. mais cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas ce pays. donc loolu lépp nag soo ko jëlee nga tënk ko boole ko. oui mais c'est ça qui fait que aujourd'hui les gens sont en de fuir en masse te li ma ci metti mooy le président addoo ci moom nga xam ne c'est à lui qu'on a confié le sa pays la seule fois ma mooy bi ñu wax ne les forces de défense et de sécurité c'est pas un problème de force de défense et de sécurité gis nga géej gi boo fi tegoon cest fii yëpp nga teg ko ay caserne ba mu fees xale yi dinañ ko bët dem cest à tant que joxoo leen liggéey cest à dinañ song ña fa nekk bu yowoo ñu rey leen mais dinañ ko song parce que pour ñoom l' espoir. Mhm. c'est-à-dire c' est traverser la mer et aller ailleurs. très bien mais nekkatul dans pays. d' on va y revenir parce que peut-être àddu ci mais exhorté na quand même ces ministres à ce que. ñu oh, ñu ñu nous sommes à combien de cest euh, de la fin du régime nee c'est ça le problème c'est-à-dire le timing ça pose problème. très bien alors euh, Guèye foofu tamit y a un paradoxe. le paradoxe mooy Serigne Saliou mu ngi koy wax tout à l'heure un pays aussi riche que le Sénégal euh, ñu ngi wax waxu euh, pétrole ak gaz déjà même loolu rek suñ si yemoon ak yeneen yuñ yuñ ci yokk euh, loo xamante ne ñu ngi daw vers le lendemain meilleur mais pourquoi ñu war a perdre espoir boobu sachant que peut-être dans trois mois wala dans moins de trois mois le régime va changer sûrement on ne sait pas xamaguñu mmh. mais pourquoi perdre espoir boobu comment l'expliquer en fait bon déjà maa ngi leen di nuyu di jégalu ci retard bi. Mm-hmm. dama nekkoon ci enregistrement benn émission pour demain. Mm-hmm. di nuyu vraiment sa invité yi Ahmed Suzanne maa ngi lay nuyu sama grand mooma yar yoof Camara maa ngi lay nuyu bu baax a baax kontaan bokk ak yow plateau tey sëñ Saliou maa ngi lay nuyu bu baax a baax nee na Aïcha nuyu naa la euh, Saliou Joseph nuyu naa la aussi nuyu ki nga xam ne mooy professeur. en réalité li ñu gis rek mooy je me rappelle ci fameuse phrase du président Ablaye Wade bi mu ne je vais pas marcher sur des cadavres pour accéder oui, au palais mm. mais ce régime-là est en train de pêcher des cadavres pour quitter le palais et c'est ce qui est dommage quand je parlais de politiciens covidés certains ne m'avaient pas compris aujourd'hui drame bi nga xam ne moo am mais dépassé na Covid-19 xale yaa ngi dee ci géej gi jigéen ñaa ngi tey da ngay dem ci marché bu mel ni Soumbédioune jaaykat yee ñëpp daw nañ et lii ko indi du dara lu dul nit ñi fa nga xam ne seen sutura fa la nekkoon sutura boobu tey lañu la la jaay bu ñu toogee tey ba suma mokki mool yi tey ñoom ñooy fay pour dugg ci gaal nga xam ne situation bi carabine la quand on nous bi ñuy woowee dañu ne APR yaakaar nañu bennoo bokk yaakaar ñëpp jàppaleen ci yaakaar boobu mais tey yaakaar yàkkeeku na Sénégal dafa nekk pays boo xam ne moo war a gënoon fii suñu doom yi daw di wuti ñun la grande coalition gëm sa bopp dañuy dem ci biir àll bi fii gën a riche ci Sénégal moo gën a sonn condition de vie yi nga xam ne nit ñi nekk nañ ko alors que ñu ngi toog ci or ñu ngi toog ci diamant ñu ngi toog ci zircon ñu ngi toog ci li nga xam ne mooy fer phosphate bi kenn gënuñu phosphate te mënuñu utiliser dara pour suñu pays lépp dañ koy jël yóbbu ko ah nañ ko waxante dañu am ay njiit yu bon ça la vérité. on a tout pour sunu doom